xam nga PIT dafa nekk parti boo xam ne dafa organisé dafa am gannaaw congrès Euh, njiit bu li koy jiite mooy comité centrale bi comité central bi boo koy méngale mën nga ne rek moom mooy euh, maanaam assemblée nationale parti bi comité centrale boobu nag moo daje ci euh, dimanche bi ñu weesu dimanche fanweeri fan weeru septembre bi ñu toogee laaj bi ñu laaj suñu camarade mooy ah woote yaa ngi dëgmal lan moo war a nekk suñu taxawaay camarades yi ci seen weccoo xalaat ñoom ñëpp daanaka ñu ne kandidaawu parti bi day Macky Sall la war a doon loolu ne nañu teguñ ko rek ci teg bu nga xam ne jàpp nañu ne ànd bi ñu ànd ba léegi nekk na ànd bu rafet war nañ ko feddali mais dañu ne boo nattee li ñuy defandoo boo nattee li ñuy xaar boo nattee fi réew mi toll boo nattee an am yu bees yi laaj na ñu am ku dal ku mel ni Macky Sall ku mën a boole ku mel ni Macky Sall ku am yéene ak xol bu laab jëmale ko si askan wi yëpp ku mel ni Macky Sall pour ñu continuer di seqi jéego yi nga xam ne moom la ñu seqi loolu nag bi ñu ko jàppee ñu ne jaadu na euh, bi ñu ko waxee suñu biir ñu wax ko ak suñu askan loolu moo waral jotaayu tey bi. bilan bi nekk na bilan bu rafet ci li ma jàpp booy seet li ñuy dundee du ma ne seerul ba léegi waaye 2012 ba léegi de ñu ngi bëre pour mu bañ a yokk. booy seet courant bi wàññi nañ ci teggi nañ ci lu bari booy seet peeru nit ñi wàññi nañu lempo yi ñu ci doon teg te li mu leen jural am na solo booy seet yërmande bi nga xam ne am nañ ko ñi nga xam ne ci Sénégal yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo gën a xaw a sonn loolu tam lu fës la booy seet nammeel bi ñu namm fexe ba léegi dootoo ne boo jógee lu mel ni Fuuta mbaa nga jógee ay Tamba mbaa nga jógee Sigicoor naan maa ngi dem Sénégal mel ni foofu du Sénégal bëre ñu ciy bëree xeex bi ñu ciy xeex nammeel bi ñu am pour def ba nga xam ne li am Ndakaaru am foofu loolu tam defe naan lu jara jàppale la booy xool li ñuy defal école bi ak jàngalekat yi loolu lépp nekk na bilan bu positif booy xool yoon ñu rëdd ak yi nga xam ne am nañu euh, maanaam aspiration def ko fi nekk na loo xam ne daal yar na ndamoo ñu bàyyi xel si li ñuy xaar li ñuy xaar mooy xarxanam réew mi dafa soppeeku am nañu gaz am nañu petrole dafa laaj ñu gën a roofoo ñu gën a dégluwante ñu gën a jokkoo ñu def benn say ba benn noon mën fi dugal dara loo xam ne daf ñuy salfaañe loolu nag président bi nga xam ne dajale na force politique yi ëpp solo euh, ak euh, moom defe naa ne kooku naa ne ndaw ñi am nañu ay raison yu baree bari yoo xam ne war nañu gën a ànd ak président Macky li tax ma wax loolu mooy réew mu am dal réew mu am koom bu taxaw réew moo xam ne ne nañu dañu war a jagleel gone yi rek benn programme bu spécial boo xam ne leen di may xëy ci lu anam yu gaaw réew moomu day defe naa ne mooy réewu Sénégal su Macky Sall loolu nag maanaam téeñ ba rek des des na léegi yen bi yen bi nag mooy liy ñëw ndax li gënoon a jafe def nañ ko yàlla baaxee am nañu pétrole am nañu gaz donc li ñu war mooy fexe ba gën a stabiliser suñu réew li ñu war mooy ñu faxe ba gën a xóotal suñu jàng suñu formation pour en tout cas ñu gën a mën a capter opportunité d'emploi yi nga xam ne dina ubbeeku am na lu ñu ci def desandi na bu baax a baax a baax defe naa ne loolu lu fi nekk te ñu jox ko ki nga xam ne digg na la ndekki mu jox la ko boo séentoo si moom añ bala reer mu nekk na lu jaadu jàpp naa ne wax dëgg yàlla koy waxal yàlla rek añ ndekki bi day taxaw na ñun nag ñoo war a fexe na ba añ bi dàq ndekki li reer bi bu ñëwee itam dàq loolu te mën na nekk tey bu si yàlla àndee donc ndaw yi nañu gën a jàng nañ gën a formé wu nañu gën a yaakaar bu leen kenn désespéré nañ jàpp ne ñu ngi ci un dans un pays boo xam ne mu ngi soppeeku di yekkeeku li ko prouvé mooy ñëpp a ngi ñëw ci wàllu réew mi ñi ëpp solo ci àddina bi bu ma ko mënee waxee noonu ñoo ñëw léegi di visiter Sénégal président Chine ñëw na fi euh, ak ñeneen ak ñeneen ci diir bu gàtt bu Allemagne ñëw na fi loolu nag dafa nekk ay signaux yoo xam ne c'est des signaux éloquents important ñun suñu bopp bu ñu xeeb fu ñu toll nañu fexe ba fi ñu toll ñu gën ko joyanti mu gën a baax mu nekk njëriñu ñëpp